d'abord politique parce que soo euh, toogee ak un député euh, à l'Assemblée nationale du Sénégal ñuy wax ci wàllu déclaration de politique générale mhm. euh, forcément dañuy soxla xam ci lan moo ci say position alors d'abord bala ñuy entrer dans le fond du sujet mhm. est-ce que euh, bett na la wala boog est-ce que comprendre nga débat bi nga xam ne moo am actuellement euh, sur la place publique autour de la déclaration de politique générale ci moment boo xam ne xëy na sénégal Sénégalais ñu ngi doon xaar le gouvernement ci chômage bi cherté de la la vie ak yeneen yeneen ak yeneen yoo xam ne dama jàpp ne indi loon ci sénégalais ay réponse moom lañ gën a xaar ko autre chose waaw jërëjëf euh, sëñ Moustapha <clears throat> c'est vrai que euh, depuis l'élection du président Bassirou Diomaye fay ak la nomination du premier ministre Ousmane Sonko mmh. opposition bi euh, ni mu bi mu jógee ci ñu ëpp ci ñoom ci défaite élection présidentielle euh, dañoo commencé déplacer les débats sérieux sur des sujets véniels yoo xam ne amul vraiment tere bi ñu ko bëgg a jox euh, xam nga au départ il parlait du président Diomaye fay naan la kawas yi mu sol ajusté wul ak costume <laughs> ñu pare jóge foofu ñu ne noonu waa léegi Ousmane Sonko bu mu doxati ci tapis rouge bi. wala nañ nañ ba ba utal leen ay longueur na dox à 3 mètres wala 1 mètre derrière le kii bu mu dox ci tapis rouge bi ñu jóg débat yooyu léegi. Mhm. yegg si nañ ci. soulever débat yu am armée nomination armée rek ñoom ñëpp génn waxandoo ñu yegg si léegi ci benn débat déclaration politique générale on semble découvrir aujourd'hui que tey que règlement intérieur u assemblée dañ koo falsifié on semble le découvrir aujourd'hui ñi ci ëpp ñu ngi wax ñi nga xam ne ñoo ci gën a weex gën a yóbbu débat bi ci niveau boo xam ni jaaxal na ñëpp mhm. pourtant bi nga xamante ni alerte nañ waa assemblée nationale depuis deux mille vingt deux ni leen kat delloo si nañ premier ministre disposition ya ngeen supprimer woon ci règlement intérieur bi il faut ngeen delloo si ko. Mhm. ñii di wax tey ñëpp déggoo leen ci woon ñu wax. ñenn ñi ñu ngi koy weddi xam nga assemblée nationale moom moo circuler sa document bi. bi nga yor bi ma yor nii mu tudd règlement intérieur. Assemblée nationale règlement intérieur édition juillet 2021. d'accord document bi ñoom xam nañ ni faux la te moom lañ jox député yi comme comme base règlement intérieur te document bi ñoom xam nañ ni c'est un faux pourtant assemblée moo ko édité lan moo tax mu nekk faux 2019 dafa am notamment bi ñuy supprimer le poste de premier ministre dañoo modifié par une loi organique ndax règlement intérieur loi organique la. bu 2019 article yi nga xam ni yëpp da doon tudd premier ministre. ñu defaat le toilettage dindi ko. mooy li ñu les dispositions concernant le premier ministre. yi nga xam ne moo ci ëpp solo muy 80 article 97 mooy la déclaration de politique générale 98 sur la motion de censure 99 sur la question de confiance. notamment ñetti articles yooyu ak chapitre yi ñu nekk ak titre bi ñu nekk ñu ne yooyu yëpp sont abrogés sont abrogés dindi nañ ko 2019 abrogé mooy effacé nañ ko. effacé nañ ko. président Macky Sall ne dañ koo fal Union africaine mu ne mënatul occuper cumulativement ak fonction boobu euh, compétence yi ko constitution bi jox day delloo ci premier ministre prétexte boobu la wax. bi ñu delloo ci premier ministre ba fal ko le député Mamadou Lamine jàlloo bind écrit saisir bi ñu leen distribuer lii ni leen lii mooy le régulement intérieur yéen assemblée bu bees bi ñu fal. mu ne ko monsieur le président de l'assemblée maa ngi lay saisir ni la document mii ngi ñu jox de c'est un ndax nañ ko modifié woon liñ ci dindi woon kenn voté waatul bi premier ministre bi dellusee indi waatuñu les disposition yi nga xam ni moom la ñu dindi woon kon nag mënuñu liggéey à partir de sa document. te boobu bu ñu ko wax ci la Amadou Ba doon wàcc. pour ñëw assemblée ci la Amadou Ba doon wàcc pour ñëw assemblée. d'accord mu ne ko. dégg naa li nga wax dinañ ko gëstu dinañ ko saytu ba tey jii léegi mu ëpp ñaari at waxuñu ci defuñu ci Guy Marius Sagna bi Aba Amadou Ba di ñëw moom it waxoon na ko ni ko monsieur premier ministre munoo ñëw assemblée di def déclaration politique général ndax assemblée ndax euh, indiw li nga xam ne moom moo lay may nga ñëw fi delloo siwuñu ko ci réglement intérieur bi donte les constitution bi changé nañ ko fa mais réglement intérieur bi delloo léegi ñu war a comprendre quelle est du règlement intérieur loi organique la gis nga loi organique dafay loi boo xam ne après constitution ci hiérarchie des norme moom moo ci topp. boo nee constitution loi organique loi organique moo ci topp ndax lan mu am doole non seulement mode de votation bi ni ñu koy voté il faut trois cinquièmes des membres composant l'ensemble l'Assemblée nationale maanaam tey Assemblée nationale 165 députés la am du majorité relative du majorité absolue mais majorité qualifiée la. trois cinquièmes muy quatre-vingt-dix-neuf députés ñoom ñoo war a voter pour que loi organique mën a jàll. Amadou nga baal ma. dafa mhm. tekki ne modification règlement intérieur bu assemblée. Mhm. ay député mënuñu toog modifier ko nu mu la neexee. il faut ñu dem plénière quatre-vingt-dix-neuf. des des députés au moins voté ko. yamuñu foofu donc mënuñu ko négocier mënuñu ko soppi sans que député yi xam ko. sans que yi xam ko. d'accord voté ko à une majorité qualifiée. de trois cinquièmes. ñu teg ci ni pour gën a renforcer. dooley loi organique ñu ne conseil constitutionnel obligatoirement boobu moom obligatoirement avant si loi bi ñu koy euh, muy entrer en vigueur day président bu paree bañ voté ko da koy saisir conseil constitutionnel ba waa conseil constitutionnel ni loi organique bi ànd na ak constitution bi ndax constitution bi application ci li jëm ci compétence su assemblée loi organique moo koy déterminer. d'accord donc bu ko conseil bu ko député yi voté wul conseil constitutionnel validé ko loi organique amul. donc ñoom lii biñ koy déposé yokk ci ay articles yoo xam ni génne woon nañ ko kenn voté wu ko conseil constitutionnel yëgul député yi voté wuñ ñu def le plus grave xam nga bi nga génnee 2019 articles yi concerne premier ministre da ngay changer numérotation yi. ndax da nga ni woon 97 98 99 sur motion de censure question de confiance ak déclaration de politique générale supprimer nañ leen xam nga kon da ngay ajuster numéro yi. ka nekkoon numéro 100 mooy ñëw nekk kat et cetera. absolument léegi ñu ne la déclaration politique général article yooyu ñu supprimer article yu bees yi leen remplacer sa parle du comité de l'évaluation des finance publiques loolu la loi bi wax bi ñuy def loi organique 99 di modifier règlement intérieur dafa ni comme que supprimer nañ article yi léegi numéro yi ñu yoroon ki leen remplacer mooy le comité d'évaluation des finances publiques ñoom ñu defar foo comme que boo defaree foo xamoo nooy defaraate dugalaatee numéro yi ñu créer ay numéro bis delloo si waat 98 joxaat ko déclaration politique général ba ko ba loi organique bi ni woon mooy comité d'évaluation des finance publiques ñu ñu def ko 98 bis 99 ñu change delloo si def ba fa nekkoon biis donc nga gis ni document bi falsification ak violation constitution la ndax yokk nga ci ay dispositions te assemblée yëgu ko voté wuñu ko conseil constitutionnel gisu ko. d'accord nga surculer ko jox ko. Mhm. lii moo waroon nekk tey le débat maanaam opposi euh, parti ñoom benn Bokk Yaakaar ñu ngi def conférence de presse. di dal Ousmane Sonko gouvernement li ñu war a laaj. mooy yéen 99 lu tax bi ngeen ñeegaatee ba heure bii. Mhm. de loolu lu mu ni indi nañ premier ministre ñu woo waa assemblée. boobu ñoo amoon majorité attention. bi sûr bi président naan damay delloo ci premier ministre ñoom ñoo amoon majorité ndax dañoo def révision constitutionnelle pour dugalaat premier ministre. d'accord. léegi lan moo tax ñoom changé wuñu lii ñu préférer utiliser un faux. d'accord et que pendant ñaari at. Mhm. faux boobu moom mooy dox. xam nga dinaa ñëwaat ci ci faux boobu parce que ça me semble important et li ma jaaxal mooy euh, assemblée nationale ay ndajeem ay plénière am nit ñi dañ koy fekke donc su fekkee am na plénière bu soppi texte yi normalement normalement war na am ay seede mais dinañ ci ñëw léegi. Issa est-ce que waa Benno Bokk Yaakaar parce que maa ngi wax ci suba ne.